loolu aca mbokk tax na ñoo a nga xam ne nii moom moo nekk Bayto ku woo xam-xam ko Sir Diop woy bu xam ne woy na ko ko alors mu doon lu xam ne lu doy waar la Bayto du xeex du xuloo loolu ñun dañoo yar ñun dañoo yar ñun respect lañu am ñun dañuy dépasse kenn ñu offense kenn ndax ñu àndal boo ànd moom doo tal xuloo doo saaga xam nga maa leen wax tey benn affaire pour ngeen dégg ko gis nga gars yi daa am coow li ñuy nëbb rek moo tax ñu jël njàpp di ko géré xam nga tey nit taxaw na ne diw dafa ne man damaa sàcc xaalis jàmbur duñ duñ réglé loolu ah ni taxaw ne diw ak diw bokkuñ ci stade bu ñuy réunion ñoom ni ñu ko fekkee loolu problème boobu lu ko gën a rëy ak ñi ñu liggéey ñu ñuy liggéey ñi ñuy liggéey duñ loolu ñu bàyyi ngir yàlla artiste bi mu concentré bu nekkee mën a nekk waa ñun amuñ seen jot ñun liggéey rek lañ xam décembre bi ñoo ñoo fi ëpp ay contrat mais est du maanaam yéen indi problème bi dem bi nga xam ne ni njàpp dem na ko foofu sa Wally Seck moo indi problème maanaam dem boobu le njàpp Sidy Diop la doomu siid la day tàggu Sidi Sidi du ko bàyyi fu mu dem dafaa war a dem te lépp lu mu fa am mérito na ko pour gaa yi xam loolu kenn mësul dégg dañ jàpp ne waa Subatel ñoo ma dàq wala Sidi Diop ñoo moo ma dàq amul. amul ñoom ñaar réerewuñu ci dara bu fa demee dafa war a dem yaa ngi dem bu njëkk bi nag dem bu njëkk bi dem bu njëkk bi Oulita daa wax daa waxee noo xam ne waru koo waxee quoi dafa wax waxu boo xam ne wax wax bu tegganuwul la moo tax ñu teg tondu ko loolu noonu. yaa ngi dégg mais wàll euh, kii njàpp yàgg naa dem seen wàll doom am benn coow waaw bu fa demee dafa war a dem. mais yéen yéen yéen ma gën a xam Oulita yéen su ma nee Oulita yéen yéen a ko gën a xam mais Oulita xam ngeen ko yéen ma nee xam ngeen ko bàyyi xam ngeen ne gem bi benn Oulita ta xam ngeen ko. Oulita góor xam ngeen ko. est-ce que nekkul tamit Cambérène dañuy wan ne yéen ñoo leen ëpp doole ci côté koom-koom ñoo leen ëpp doole ci côté showbiz di o ana faramaare ni mu mel ni defante la defante de xam tamit defante amu ñee bu lampi tàqul duñ joxe seen xaalis de ay booy fa nekk ñi fa sonn booy bëgg a dee dërëm duñ leen ko jox mais keroog lamp yee tàq xam tamit nag Siri Diop bu keree benn njàpp njàpp ñee il ñu naaw ci kaw man yàlla xam ne keroog ma gisee ñi may xaalis wóor na Seydina Mouhamed damaa yaakaar ne disque bi damaa yaakaar ne di si bi moo ñëw quoi man man loolu laa jàppande ndekk rek jàpp la ñuy xëccoo ñu jàpp ci la il faut ñu naaw si koom Sidi Diop jaar yoon la kee 2009 la ñëw kii 2016 la ñëw ñoom ñaar duñu sax benn moom mu nee ba ñu koy teg ci kaw kaw kaw booy bi rek war na attention ci booy bi te xam ne booy bi liggéeykat la waaye Oulita waaye man damay wax keneen bu dul Oulita ah mais mais mais euh, ko ko la ci jaami Omaro Omaro nekkoon si yéen kala ci jaami kala ci jaami sama question mu ne Wally du waaye maam la ci Sidi. kan la ci jaami laay wax. borom borom borom borom borom Bakari wala jànkat bi. mooy jànkat perte bi man xaw ma turam. mooy jàngat bu perte bi. waaw léegi moom lu mu wax. moom nee na Wally Seck. waaw maam mooy bàyyi Sidi na arrêté ci kaw. wax nga dëgg de nga dëgg lu leer lu leer la wax nag ndax ndax ku dugg ci tarixa jaxase ko jaxase sa sëriñ. jaxase say jabaru sëriñ jaxase sa doomu sëriñ bàyyi jàng ñëw sóobi waaw boo ko jaxasewul doo gor waaye bu ko jaxasewul du gor fu mu jigéen mu soree tas kër sëriñam ah kooku bu jaxasewul du gor waaye ah yéen tamit borom ñetti bakkan yi fu mu dugg mun na koo tas barki alxuraanu karim yàlla ak yonent bi buñ ko kanam mun na jaxase mais yonent bi moo am caractère quoi moo tax xanaa dëgg dama ko mayoon kanam ngeen xam loolu noonu dañoo am dama ne Siri Diop si àdduna ci àdduna Siri Diop benn maala rek laa koy mën a nagul ci àdduna laa koy mën a nagul ci àdduna mooy nit taxaw ne ko Siri Diop maala mag mais maala dàqa way maala gën a diñ maala gën a gëm sa bopp non non loolu du mus a am. mais mais la moo waral maanaam à chaque fois la gis waa Subatel ñooy fay ñooy jóge si yéen waa waa Subatel ñooy dem à chaque fois si Faramaren mos ñu gis benn nga xam ne day ñëw si yéen moo lan moo xew. waaw que mbir mi ci ñun la dama leen ne ñoom bu ñu gisoon jaar suba teel ak yëg ne benn muus mi ngi fare suba dañuy jël ji muus parce que dañuy yaakaar ne mbir mi ci muus la nekk non mbir mi jóob la tant que jëluñ jóob jëluñu kenn ñoom fi ñu toll ñun ñun ñun ci suñuy barke ñoom ci la ñuy daw waaw yow déggoo dama la wax olof Njaay nee na naar bu ndaw lu mu wax ci naar bu naar bu mag bi la ko déggee de naar bu ndaw lépp lu mu wax bu mag la ko déggee ah xam ngeen ko. waa Seck nga bëgg wax. waaw yow man bu ma tudd ay tur man ñii xaw ma leen barki Seydina Muhammad fay ma wóob ma leen fekkoon ajana yow man xeyam yow man xeyam ma leen fekkoon ajana damay ba mu ñëw ma ñaan ko njëkk ne ko yóbbu ma safara nekk moo fa nekk sekkuma dara aw ma sax jot ñooñu ay waaw ñooñu yaram barki alxuraanu karim dawuñu suñu yaram dawuñu sax suñu yaram voilà li nga wax ni say morom waxoon nañ ko fi ay bés xëy un bon jour sans la kan kan la waaw tuddal la may tur wala bëgg ak kan kooku nu mu tudd ak ban tur ak kan man na laa tudd man Barito laa tudd bàyyi leen ba Barito def loolu man de barki mo Mohamed man képp ki ànd ak Sidy Diop maa gën dëgër bopp ndax xamul tax man damaa xam li ma bëgg man man lu ma mixa fanaanu ma Ouest fanaanu ma noo far fanaanoo bundu kër artiste benn man lu ma gudd gudd yëmbal laay fanaan sama keppaaru yaay man bëri na booy complexé booy complexé kër artiste euh, artiste la ñuy fanaan pour ñu lekk man déggoo barki Serigne Saliou Mbacke man du ma tëdd fu nooy sama yaay tëdd fu wow man ak sama yaay laa la wax ñooy fanaanandoo ñooy yeewandoo te man loolu laa gëm. li nga wax ni mu mel ni que euh, sorti yi gars yi def démb ne fi ngay defee fa fa def émission. kan moo ñëw sama nekk. kan moo ñëw sama ne ñoom du kat man man boo duggee sama nekk nga xam ne booy man ñoom duñ benn man sama yaay sama yaay man sama yaay barki Sëriñ Bamba sept heures du matin lay yeewu defar ñoom seen yaay midi lay yeewu bu ñu yeewoo projet yi lay wëri ji ak natt yi man sama yaay daal liggéey de sept lay yeewu ñoom seen yaay midi lay yeewu ak une heure bu ñu yeewoo ay natt lay wër ak ay projet dégg nga ma sama nday dafa liggéey de barki Sëriñ Saliou Mbacke man kenn ma fooyee ci àdduna tax du ma kenn damaa jox cër sama boobu damaa respect sama boobu moo tax fii ma egsi nii ma egsi ñoo ma jiit showbiz maa leen ëpp jom fuuf ku ci nekk jaar nga ci ñaari waykat ñetti waykat man bi ngeen ma xamee ba tey kan kan ngeen ma xamee kon maa leen gën a diñ te xale la maa leen ëpp jom lu ne gis naa ko mais ma ànd ak sama àdduna ku du Sidi Diop parce que loolu mooy àdduna dama ne Sidi Diop bu bàyyoon way bu bàyyoon way yor super nekk chauffeur man maay nekk apparentam di ko encaissel barki lu ma gëm la man bu la ma gisee may ànd ak ku dul Sidi Diop sama yaay bi ma desee yàlla mu fekkee sama njëriñ man lu ma gëm rek laay wax xam nga maanaam micro yi neex na ñu maanaam ak caméra yi ku nekk mais man li may wax dama koo gëm man sama àdduna kenn ma vaar lépp loo xam ne artiste jox na ma ku dul Sidi Diop loolu ma ko yoree yàlla bu ma jik ndax kii damaa xam lu mu def ci man voilà Sidi dérangé wul ndànk da leen di lekk ah, ah, maanaam mais yow ñaar ñaar artiste ñoo fi nekkoon buñ ñëwee ñi dañoo boot ñu uuf ci kanam mu leen aayoo nee ne Sidi da koo njuñ da koo nax ndax bu métti loolu loolu la mën na yàq addunaam foofu ñu foofu maanaam lépp lu fay neex ay doomu Sidi lañ bu leen génnewoon liste yëpp ñi gën a yaakaar ay doomu Sidi lañ comme moom dawul suñu yaram ndax suñu barke lay daw voilà. mais li nga ñëpp ay doomu Sidi lañ mu mel ni que lu Sidi togg rek mu ñor après day ñun baax moo tax ñoom lu ñu yor ñu ko baax da ngaa gis beneen waykat bu yor matériel ñu koy jël ñun waa Subatel ak ñun waa 5 étoiles baax moo tax mën a liggéey ak suñu éléments yi dangereux moo tax lu ñu yor ñoom ñu jël ko te ñun sàkkuñ ci ñoom dara. bu fekkee loolu rek bu fekkee loolu rek la pourquoi Wally demul rooti maanaam si Youssou Ndour pourquoi Wally demul rooti si Pape Diouf mais à chaque fois yéen ay ñëw si moom est-ce que du maanaam yéen euh, yéen a bañ a fay artistes yi wala Sidy Diop moo am la. Sidy Diop moo amul lan. benn relation ak ak wala loolu. mooy yow yow xanaa da ngaa xiif. Ah, yow yow gis nga Sidi Diop ak njàpp nuñ mel. gis nga Sidi Diop ak fecckatam yi nuñ mel gis nga ko gis nga ko. mais pourquoi kon. doo ko waxu nit kon pourquoi pourquoi njàpp dem baax naa dem. njàpp yéen a ko yóbbu. ah yéen gudduñ toll yéen gudduñ yéen yéen. taxawaay Matar Diop suba teel ngeen taxawee ndax damaa yaakaar ne yéen la nekk yéen a ko gën a xam nit ñi njàpp mosoo leen dégg fu ko Matar dàkkee wala fu Sidi dàkkee non mosul am ci àdduna yaa ngi dégg tournée bi ñuy wax nii gars yu bëri ñu ngi juum tournée bii artiste bu nekk ah nekkul da ngay yóbbu sa orchestre wala da ngay jàpp ñi ngi leen non non non non non dafa tombé ne olof Ndiaye neen tombé moo ay gaaf yaa ngi comprendre Ousmane Bongo benn benn nit kese moo dem keneen ak keneen noonu Sidi li nga ko wax loolu la def boo doon yóbbu orchestre day yóbbu ñëpp Sidi amul benn problème ku xuloo moo ko tooñ Sidi Diop ku xuloo moom ko tooñ amul benn problème ndaay loolu kaay ma xamal yow laal nga sa loo xamul gis nga gars yi bu tey di jëflu le 29 moo ko waral zénith bi moo tax ku nekk di jëflu ah li ma xam li ma loolu yëpp zénith bee ko waral. lan. ba zénith. Hmm. ba zénith. Hmm. <laughs> gars yi amuñu pexe boobu sax. Hmm. Sidy Diop lu mu bëgg def. incha allahu rabbi bu ko yàlla reyul loolu da force gis ngeen fu mu jigee ak fu mu ñëw cinq ans de carrière yombul ci way voilà. waaw yow la 29 ñee da leen la 29 way ba Zénith laa la wax Zénith bakkan du fa des ñëpp la ñuy rey Sidy Diop day morom waykat yi ñii ay aawkat la ma ne Sénégal fii waykat du fi yor micro di way Sidy Diop nga tëj waykat yi fi nekk ci néeg ñëpp teg ñaari dof ne leen ku mënu way dañ lay rendi barki arxuraan ma nu ma dégg si gindigaale ndax Sidy Diop day génn ñoom waykat yëpp dañ leen rendi ndax xamuñu lu ñuy way Sidy Diop ak ak ak njàpp fu mu ngi dégg nañu démb rek démb rek moo ko bloqué kan xanaa ñoom ñoo jël seen téléphone bu la ko njàpp ci téléphone Sidi ah gars yi nañ njàpp buujowul un centimètre mais gars yi gars yi ay waay fen fen bakaaru fen ba garaaw na te gars yi dañuy fen rek lu garaaw lay lay fooy mi fen ragalul ragalul lan comme ragalul comme comme